ñu taxaw ak ki nga xamante ni moom euh, moo fi génnee son boobu naan euh, waa ñëpp sénégalais yëpp daan mu nekk hymne ñëpp di ko way ñëpp xale yeeg mag ñi di ko di ko way di ko waxtaanee ñu bëggoon xam rek inspiration fan la jógee ci loolu. waaw soxna si ñu ngi lay jaare te di la bëggee te di leen ñaanal jàmm te di ñaanal président Bassirou Diomaye yàlla defal ko jàmm defal ko xéewal defal ko yeneen yeneen yen bi yàlla na oyof waaw waaw way wi nag moom mbirum suñu borom la rek ndax président Ousmane Sonko léppam suñu borom la yàlla yàlla na ñun ay taalibi Serigne Saliou lañ mosunoo way wayu politique ñu ngi koy doo ko def waa loolu Serigne mais président osman Sonko moo nu ko jaral moom lañ bëgg moo nu yee moo nu may taw féex goo xam ni tey jii yeenu ban ni jar waaw ñu nekk ay dongo daara tey jii politique xamuñu ci xamuñu ci woon dara waaye tey bu ñu demee ba am ci astuut wala ñu yeewu ci président Ousmane Sonko moo ko def wax dëgg yàlla léegi nag suñu borom moom moo jaarle ci ñun way wi rek way wi génn neex àdduna bépp waaw waaye mbirum suñu borom la mbirum suñu borom nag moom ci lu mën nga ko cee gis waaw. ñu may ci way wi nu mu demee Sonko yi Jomaay Jomaay de mooy Sonko. Jalal Jamaal bur yàlla jërëjëf. Sonko yi Jomaay Jomaay de mooy Sonko. Jalal Jamaal bur yàlla jërëjëf. eh Sonko yi Jomaay Jomaay de mooy Sonko. eh Jalal Jamaal bur yàlla jërëjëf. mani ndigal jim na. Ousmane Matar noonu ya moo joxoon Diomaye ni ko jëlal ndam li Bassirou Diomaye président Sénégal jëlal ndam li yàlla yow la àndal merci